jërëjëf mbokk yi ñu si fii ci SDT ñu ngi ngi si émission seen mbër fekk si fi benn xale benn ndaanaan bàyyi ko ci écurie bu mag bu ñaan écurie Ndakaaru jàmbaar yàgg na fa boo doomu jobaas bi xale baa ngi nii moo war a dajeeg Demba Thiaw 2 dimanche le 29 décembre si stade Iba Mar Diop borom Iba Mar Assane Ndiaye bool production tëgg ko fekk na xale bi ñu fii macha allah mu ngi ci forme waaye kenn du ba caw doomu yoof bi boo jobaas maa lay siyaare xaadim oh, maa lay delloo ziar bu wër di la bége di nuyu waa SDTV sama gaay yëpp maa leen di ziare ku ci mel ni sama mag yaa ngi dégg maa koy ziar bu baax ak Daouda Thiandoum e tamit sama mag ak Muhammad ñoo ma gunge si fii tey maa leen di ziar bu baax di nuyu waa SDTV yéen ñëpp maa leen di bége. for nga toll ci wàccaay bi sa diggante ak Demba Thiaw ndaanaan bu mag bi ci Yoff. waaw ñun mosuñu noppalu ci làmb nag ba saison bi tëjee ba léegi ñooy fii di entraîner di matin ou géej soir fii nii ya- ba léegi ba léegi mosuma tëj su ma noppaliku deux semaines nopali ko deux semaines motax man manuma am yaram dama sonna dama entraîner ba sonn li nga ya entraîné moo bari mhm. waye libu bi dem ba ciow numéro 2 mhm. xala bi tok 2 ans bëriwul nee na dala may sens nga dëggal sa bop taxaw bul daw mais day wax rek man lima ma bëre moom bëriwu mo fi dañu woon ak rawaan de déggoo ma de rawaan rawaan mo daw rawaan rawaan rawaan wallaahi waaw dégg naa mënoon ko joxoon nag. dafa daw semaine mu daw avance bi rawaan la bëril rawaan daw avance bi man ñàkk adversaire moo tax ma jël ko bu may chance day a man maa ko may chance li ma bëre moom bëriwu ko. moom nee na dafa toog deux ans bëriwul retour am lay signé grand retour. mu daw ci yow lu mu toog deux ans bëriwul lu ko fay lu ko ko yóbbee du defet waaw rawaan nag mu mujjee daal man maa ko fay delloo nag. yomi dan dama ko fay delo inshallah allah lébu bi la lébu ndooy man man séeréer saafen tiir la nee ma doomu mbeur la de dama doomu mbeur gi wax ki jur sama yaay mbeur kamil la kon yeen ñaar ñep ku re doomu mbeur la Moussa Doole bu kiñaabu moy sama mam moy sama mam moom dem ma ciow de man deretu mbeur moy daw sama yaram te séeréer saafen piir la lepp luma Nanya la wax rek nañu xamne su bes ba mom du def dara mi xam nga dem ba ciow dem ba ciow lima li Nyaka adversaire moo tax ma jël ko sama avance dafa yag ci asan ndjay tour bi boko dege xamna nda nan la dem ba ciow deux boy jowas man dëkk lay wuyo wa yow de sa dëkk nga jël wala da rek wuyo mhm. man dëkk lay wuyo moo tax man ay dem ba ciow yof yëpp yeb yof Joobaas jowas ko upp foofu 54 village mom la moom wa way 54 village cinquante quatre ten la ci pindi bi la dego ma dem mais ñepp ñepp <laughs> may ngemb serer sin safen pol ba ci waaye ñëpp a ngi Jobaas ngeen na la waaye nanga nga tey yof pare nanu de. waa déggoo li ma la wax mënuñu pare ba gën ñu pare lébu ci séeréer saafeen la jógee man bu ma ko dalalul moom du dalal. mais xam nga Demba Thiaw. Demba Thiaw déggoo li ma la wax ñàkk adversaire moo tax ma jël ko parce que sama avance tollu ma ni gars yi mais bëreeg man dafa jafe. lu tax bëreeg yow jafe. non gars yi ci ñoom la dañuy moytu mbaru dëkk war problème mboobu la te ñi nga war a bëreel man bëre naa douze combats. douze combats douze moo tax ma ne la su ma booy jaxaw mi fi teewoon yaa ko daan booy maa ko njëkk a déggaloo mu laa dégg ba léegi sama avance moo yi Thiès amul mbër bu ko fay jël non sa avance nag mënul Thiès ay ndaanaan ma la wax <laughs> ñoom alaaji gay ñu ngi foofu ay ñoom laay goote ñoom laay goote alaaji Assane Ndiaye Assane Ndiaye boo demee ci moom non laay goote laay goote boo demee ci Assane Ndiaye tase nañ fa maak alaaji gaynde alaaji gaynde ndaanaan bi am di nogay doofu ñoom ñoom ñoom Pam Mbaye urgence boo yooyu métti yooyu noonu nañu yàlla may jàmm dinañ fi taxawaat boy boy xalaatul boy, boy avance defal ndànk. ñooñu booy jaxaaw leen gën a te bi may diigal booy jaxaaw ni yow laa toll. Ah, waaw ah man tuuti. <laughs> mais ak ah dem ak waaw di ko ñaan yàlla nag no amul problème Yoff seen tëdd fil suñu équipe Dakaaru la ne woon gaynde gu mer la déggoo ma de seen tëdd fil yëpp ah. lim li mu am ci xam-xam bëri Yoff la amee mais Dakar dafa doon moteur loolu la ma wax non def mbër yow fekk na ko ak Malick Niang wallaahi lazim Dakar dama fa laa dugg équipe Dakar loolu di doolu tey fekk bëri gu ma sax arrêté di toj ci mbapat yi di jël ay drapeau lamba moo tëre di rek xaadim mais du yàgg dem caw billaay non déggoo Demba Thiaw su ma koy jël nii xam nga yaa ma koy laaj maa ngi koy jël nii ngir avance bu xam nga rek date fixé nañ ko nii moo tax ma jël combat mu fausé te publicité bi daw na mais maa ñaan yàlla ndam ci kawam mais may chance bu dee am man maa ko may chance li ma bëri moom bëriwu ko moom du moo la may chance wallaahi nee na deuxième ci la bëre grand combat moom booy taamam mais loolu yëpp loolu yëpp mën na neex moo la jiitu làmb ji waaw moo ma jiitu ci làmb bi mais li ma bëri moom bëriwu ko mais ay ay ndaanaan la bëreel nag. waaw ndaanaan ñu mu bëreel rawaan moomu ngay wax dafa daw sama avance. kon ndaanaan man billaay wallaay yow di gaynde demal ci Assane Ndiaye nga laaj ko boo jëlee laaj ko sama avance dafa dawal semaine bu delloo ko. ah jëloon soo bëggee sax ma tegal la audio yi mooy loolu. doo xaadim ma ni gars yi de mais gars lu ñuy daw laa sa avance daal comme gars yi dañ koy daw mais donc Demba Thiaw mi ko jël. war a signé grand retour. man tiit naa ci Demba gis naa ko nag muy ñaq nekk ci musculation bi. entraîné non loolu graisse bee bëri. non non dafa nekk ci état. ku toog deux ans bëre da ngay mbuxuri quoi. lan mooy <laughs> ma de sa bi day nooy. yaa ngi koy tooñ ma ñun dañuy mbapat di physique di entraîné di bëri. neena ma da nga yor bo tafé mo door lepp lamb la mom da nga da nga mo xalat su boba du beure mom dal mom na mom e fecc bi mais neena da nga man su ma ñëwé sama culture la andi duma yoru dé man lepp luma mëna def lepp luma mëna def ngir yalla may man tam ci kawam dina wo def neena xalaato taxaw di xex ak mom nak wa mom day wax rek day wax rek man xex la gëna man beure barki sayidina muhammad xex la gëna a mën ko bëre mais xam nga ñun bu dé da ngay mbapat souvent nu ngay défé ba daan noonu ngay non ngay défé quoi loolu lañuy gis souvent gis ben mbeur tey ci ben kélé nga daan ci set mbeur duñ laajte ko door dé ka daan lañuy ñuy laaj. waaw loolu la mu di de buñ ko déggee fu daan lañ laaj. mais voilà moo tax xam nga it buy wax dañuy yooru yooyu dañuy bàyyi. mais ko xamul rek xamoo ko. est non xamuma billahi xamuma. saway man ñi may dajal ño gëna dis dem ba ciow fofu man damay compétir chaque semaine may all wa àll. ko di mom gis na la ci mom chaque semaine. seen naa la Ibou Mar moom sans Ibou Mar. un million bi passé quart de finale lañ ma daane. Adrien Senghor. Adrien Senghor dama fay finale xëy na wax mom baxut àll ba difa naru normal. kon kon lépp mais lamba mo téré di harim kon lépp bis ma dèjà am na problème. mais yalla baax na daal. mais grand retour lay saisir do yoo xoo grand retour am bobu day delouat parce que xam nga li problème bi ñun mënu ñu di liggéey di dem. moom dafa liggéey daanu xaar ñun ñu nekk ci yoon moom dafa découragé moo tax mu toog deux ans du ñun ñu nekk ci yoon moom waruñu téye waaye sama waay problème adversaire la ma wax ban problème adversaire lamba ji mbar yi fi nekk ak ju dul jeex nga naan ma la moom fu mu toj ba am problème adversaire waaw ah, loolu la ma wax de nawul mbër bu ñu ràññee ko daal c'est le 29 moom le 29 sama bés la incha allah sa diggante ak Assane Ndiaye sa combat yu bari fii Dakar moom moo ko tëgg. non ñaar seen diggante la. non Assane suñu grand la quoi parce que ñun boo xoolee sama première combat Dakar suñ Modou Niang ko tëgg. mais li ma bëre fii plus de six xaw ma sept yëpp Assane Ndiaye. ko tëgg no moo ko tëgg parce que bu suñ Modou Niang boobu yëpp kii wut Assane suñu grand la suñu lépp la te daf ciy jàpp bu baax. parce que souvent comme ni ma la ko waxee sama avance day dem ci moom mais day wër ba génnee. ki ma war a mën a bëreel kon nag yàlla na ko yàlla defal réussite total lu mu bëgg ci journée bii di ñëw xam nga yàlla may ko lu raw loolu noonu parce que suñu grand la ku baax la suñu combat yëpp moo ko tëgg ah, Dakar yi ñu nit ñi ràññee fii dagar à part si di jaxate moom moo tëgg combat yëpp suñu grand bu baax la waaw ñu koy ñaanal jàmm bu baax. ana Yékini Yaxya Diop Yékini kooku dee ci télé lañu koy seen wax dëgg si yàlla moo créé écurie Ndakaaru nga koy gis ci télé non créé wu ko pa paayee ko créé paayee ko na xëy na yokk na tur bi mais paayee ko formé ñun bañ fay nekk nekk kili Boy ñun nag ñoom ñoo fa nekkoon boobu Malick Niang mënul sax bëre war a génn bëre ñoom paakati ne ko mukk doo génn bëri da ngay xam ñoom brise de mer. champion koo woowee champion nag. ñoom tonnerre de anti. non tonnerre de ñoo fa des sama doomu ndey anti. léegi espoir rek la fa des mais dañuy ñëw dañuy ñëw wàññi boo gis ci benn lay commencé xëy na ñëwee seen jamono wéy na ñoom geesuwuñu ci ginnaaw te ñun am nañu gëm-gëm bi ku mel ni paakati Diop mooy teg ci ñun. xam nga fula per Mbay Siise ñoom Sewru Fall ñoom Picca ñoom Waagaan. xam nga mais la moo tax nga ne ci télé ngeen gis. non télé effectif parce que ñun Yékini boo bëggee dégg-dégg bu muy tase Balla Gaye amul luñ ci daju gis nañ ko gis open press am moog la daguerre ca terrain jaraaf bi lañ ko gijja teg bët boobu xëy na nag na di déggoo paay mais ñun mbër yu ndaw yi nekk équipe Ndakaaru doon topp ci ginnaawam boobu lañ ko gijja gis Yékini mos na am combat ñu convoqué nga ànd ak moom def istat waaw combat la daguerre bu mujj bi bi passé mo ñun ñun ño andi won maire ba quoi maire maire bu ah, <laughs> ya. di woon kam fulu bi jomal gars yi waaw yaa ko jëlee na non non déedéet koo waxar déedéet koo xaritu yaa yàlla rek dafa ñëwoon pour yéerndu waa ji xam nga ñibbiwaat te noonu la demee dafa yéerndu ñibbiwaat mais yëg ne depuis bu mu jógee ba léegi ba mu bàyyi mu ba na téléphone non non ay relation ñun amul benn booy bu may gis ne gis naa Yékini wala ñëw na école xëy na ci paay quoi ñoom paakat parce que ñoom ay mag lañu. mais est-ce que loolu nekkul ci yéen non dan la ñun ñun lu ñu am ci làmb Yékini amul lu mu jaral woon gars da daan gaare oto combat am ak Balla Gaye Thiès 2012 gaare kaar yi ne gars yi ku parewul pour dee bu ñu yegg ci oto yi billaahi yaa hmm? yor ay pick-up duy ci xeer mais waroon na demee neneen waroon na mën a geesu jaam yi parce que am na lu mu ñu jaraloon quoi war nañ ñew ci écrit bi war nañ ñëw ci écurie bi même bu dee manul xam nga mu jappalé ñu ci yenn côté yi ba léegi promoteur la Fata production la tuddu légui gaay gisun ci seen bop wa écrit Ndakaaru mais est ce que yéen jot ngeen dem zoal ngeen ngeen dem seetal ko waxtaan sa wa yëkkini sa yu dan dan convoi bi fi lañ ko dan déparé mitna maintenant Sonatel fii Sénécar tour busy def convoi combat ak Bombardier combat mak Baboy combat mak Tazen yëpp dañuy xuus Mbour genn ñaning jaar Joal dem baasu. ban appel nga koy lancé moom. na ñëw jàppale gars yi na ñëw jàppale gars parce que ñun fa doon entraîné dañ fa am problème. yaa ngi dégg après ñu génnee ñu suñu papakati Diop ñoom Sewru dugg ci foowu waxtaan ak bàmb ba am benn pukus. gars yi bu ko waaw monsieur le mu jàpp ci affaire yi ba ñu am fu ñuy entraîné et sans gars yi dañuy cotiser pour ñu def fa suuf am fu ñuy entraîné te Yékini bu ci dugaloon loxom war na mën a demee neneen même bu ñu lu mat 4. camion suuf wala trois sax dañuy sant mais instant yi yàlla def na jàmm ba gaa yaa ngi cotiser ba am nañ benn camion ñoo ngi waa cotisé waat pour ñaareel bi. kaddu gu mujj xam nga warul moon demee noonu quoi. ñu lay seetaan mhm. ñu lay déglu du ñàkk dina ñëw jàppale xale yi ndax Ikrim Dakar bu ñu ko waxee na yëkkani. waaw mais léegi da may may. waaw sama mbokk yi wooteel. waaw ñami kañi mbokkaa ci ngosa bi ci tout waaw. li nga li nga la. ah, ah man séeréer sa la à part loolu may ma may ma tuuri man nuyoo sama gars yi waa 93 maa ngi leen di ziar bu baax a baax. 93 mooy la 93 Blaise Diagne. waaw immobile la. foofu mooy ghetto bi quoi penc bi la. foofu la suñu bos bi géré xam nga Ousmane Fall suñu patron bi ñoo ngi koy ziar bu wërëw Ousmane ñoo koy ziar di ko woo ci komba bi mu jàpp ci bu baax a baax. Ousmane Sarr waaw ak jabaram Faat saar ñoo ngi koy woo bu baax mu ñëw jàpp ci combat nga xam ne combat bi combat bu ñu soxla la bu ñu sopp la Ousmane Fall ay ñoom grand Yoroja waaw suñu papa Yoroja ñoo ngi koy ziar bu baax a baax mu ñëw ñoom Baba Touré ñoom Lamine Ba ñoom Mamadou Anne gars yi waa Mafia 93 yëpp xam nga booy yi ñëpp ñoo ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat bi. waaw di nuyuwaat sama gaay ñoom Ibou Koum ay ñoom Daouda Daaw Ndambe yaa ma gën a xam <laughs> mooy loolu maa leen di ziar bu baax waaw di leen woo ci kombaa bi ñu ñëw ñu jàpp ci ñu ñëw jàpp ci ay waaw. loo koy mujjee wax moom Demba Thiaw Demba Thiaw déggoo ma lu mu liggéey doyut lu mu pataa doyut lu mu gën a diis gën ma arrangé loolu la ma yàlla dimbalee. mais déggoo li ma la wax ñaaw a gën dee. nu mu ñëw ma géré ko. man ki ma jaaxal mooy ki ma tollool mais nu mu gën a diis gën ma arrangé. Hmm. kon noonu la demee woon eh, laa séeréer saafeen waa lakkal. voilà man waxaguma séeréer saafeen nga may tàgg gaayan. waa ñami kañi baabi ngo bu baax a baax. mi kañe ngo bu baax a baax mi kañe mbokkaa ci ngo ci du tout waaw mi kañ amino na baabi ngo Babacar Candum waaw ñami ɓe waaw ñami ɓeeɗ keeɗa waaw ñami ɓeeɗ keeɗa mbokka cingo saavi surtout kinɗu boy jobas ayra comba 29 nge sat iba mar diop waɗi ɗu tout ɗu hay ɗu ambohɗe waaw a vol ƴaari mi lakko han fansi kalapingo nak boy jobas ɓoyno woyse grand moussa ndaw no mayi kikkoyen prési ablay ndiaye ablay sen gogo no moussa ndaw sangue mandiaye modou diom sipan ñami ɓeeruk ɗo xaye tuux ɗo am ngang combat ni kalando waa kalando maa ngi leen bu baax combat bi seen combat la Habib Lekaran ñami ɓeeruk ɗa fo xaye fo am ngang combat ni Lekaran Farhat ñami ɓeeruk ɗa fo xaye fo am ngang combat ni kuɓ kindu boy jowas ay war lebar ten soxle i mi ɓeeruk maxi décor waaw maxi décor ay affaire décor waa jobaas booy waa yokko coow xam nga famille ñëpp maa ngi leen Saven ndova fm gorkos info ba tuh ñami ɓe kingdom ñami ɓe de bi ceewo ba hay ba am kisan ba hayat ba am gan combani ɓirɓira hayat do am gan combani sangue hayat do am gan combani ƴes hayat do am gan combani palam hayat do am gan combani taten hayat do am gan combani ngol wañi geno mi ngol wañi yan geno hayat do am gan combani bi sitam sipan bi tazet tuh hayat do am combani kiren nabi banja ɓe sindia kiñaabu nan geno ɓe caacingo gen ɗu tukayet ɗo am kan combani ɓe soro hasab ɓe guérew ɓe ƴes lumbung ɓe jibi alsamba sis ɓe sekandour sekandour sans frontiére mamadou diop jon dg kosek ñami ɓeerup du ɗu tux ɗu xayat ɗu am ngan combat ni kuɓ king ɗu boy jowas ay rak combat ambat nga ɗo sohlay ɓoyne daf am ɗay bajjeni ngo jaara candum kiñaabu ciki waaw ñami ɓeerup ɗe bu baax a baax waaw ɓo nun halox rek ɗa inat ne wa ining wat lai kiren waaw lai kiren ñami beruk do bu ba xayar du am ngam kombani xayar do am ngam kombani andare ceo andare sis, andare sis ceo wow. ñami beruk da xayaf am kombani antoine ceo xayar do am ngam kombani kombani dal wa kombani do do abda banja ah zena abda band banja wa ñami beruk tuh dal du tuh nyami beruk du duhay du am gon komba parce que aku king lu boy jowas ngrat di dar ngina di dar min di dar parce que kati tu ca miski musique mais jabi na tonti do ca Alin Sar ministre des transports dabi beruk da Alin Diouf Aliou Nia Ismaïla John wow, ansa waaw Alin Sar <laughs> ministre de tourisme ay <laughs> ansa suñu xam nga na Lion agricole Diobass ñoo ngi leen di woo bu baax xam nga. ñi mobilisation bi fan la toll. mobilisation bi deuxième spécial. deuxième spécial amul problème. ñang baal ma fi tànn. ñang baal waaw loolu bii nag mooy gën a gaaw boobu bu soobee yàlla. may ma tuuti moo Aliou Pakala maa ngi koy woo. Aliou Pakala Moussa Dia maa ngi koy woo bu baax a baax nañ ñëw ci jàpp waa Jilaas waa Joral waa Ñongolor. yëpp maa leen di woo ñu ñëw jàpp ci combat waa Simel sama gars yi nekk port oh fàttoon naa leen ñoom Ali ñoom Ali <laughs> ñoom Bamba xam nga ñoom Omar Faye port ñoom Bun Diallo ñoom ancien sama waa ji waaw génn na ci gaalu célibataire yi waaye di ko ñaanal jàmm yaa ngi dégg gars yooyu yëpp ñoom Moussa xor-xor ñoom Baye Bàcca port mol 1 ñoom ñëpp maa leen di woo sama yaay maam jaara lagon suñu yaay ju baax kooku été bi yëpp moo ñu yor ñu ak ñoom zal ball mu ñuy jox lu ñuy dundee fan si club Zal Ndingler ñëpp maa leen di woo ñu ñëw sama doomu ndey boobu borom Ndingler borom baax la waaw day jàpp ci lépp waaw ñëpp maa leen di woo sama gars yi Lagon ñoom Ernest ñoom gendarme Sakho xam nga ñëpp maa leen di woo. rendez-vous le 29. rendez-vous le 29 di woo gars ñëw dëkk ba bi ngol fañe la sori de lu teel a ñëw doyul. non gars dañuy teel a ñëw occupé. ba ah. ma caw du am dara regroupement bi ngol fañe la suñu kër. open press bi bu combat bi desee une semaine la incha allah. na gars yi ñëw école élémentaire ngol fañe gars yi yëngal ci kaw ñun ñu door ci suuf comme d'habitude. doomu saafara la ñu piir doomu saafara raak di indi dana tiite. waaw dabi beedu ba tuux baa bi ngo càndum ki ñaabu waaw sama tante Ndeye Badji Abino waa waañ ba billaahi <laughs> waa waañ ba ñoom fat dem ay ñoom sama yaay Amino ñoom Roxset ñoom fat dem ñoom yay mbew gaa yëpp ah? waa waañ ba ñoom sama yaay Fatou Thiaw suñu papa Seex ñëpp waa waañ ba gis nga su ma amee combat dëkk ba ñëpp ay kii sama tànta may mun a godaf may nduka ñëpp ñëpp ñëpp maa leen di woo di ñaanal sama ASC e bi nag waa Calpoy waaw dañu am final xam nga le 28 décembre yalla na leen yalla may ñu jël ko parce que sama équipe la ko war le 29 ñu ñëw Ibamar ak waaw jobas info yeb sama Gand, la dégg la waaw naay sax saafeen bi la woon. lebu bi hmm. wala séeréer bi. mooy hmm. dajeeg lebu bi. Hmm. doomu yoof bi. dem ba caw de samedi wala dimanche le 29 décembre. 2019 ah. ca stade Iba Mar Diop. Ah. Assane Ndiaye tëggu ko grand combat war a dox ci diggante Alioune Seye bu Ikiri Waalo ak Tafa Mbër combat yërmande Alioune Seye Junior ci defet mbay gu géegu mujjee daan Tafa Mbër jóge ci defet Mame moo ko daan kon ñoom ñaar defet interdit te duñ maxi niir. ci kanam ñu dem xoolee Assane Ndiaye noonu la demoon tey maa ngi àndoon ak yëpp ñëw di leen bëgg waat di leen siyaar émission sunu mbër la yeneen mbër yi xaar leen ñu ñu ngi ñëw ak avec SDTV dara du yomb ak Xaadim Anta Seck taalibu Cheikh Abdou Karim Mbacke bi ñu ngi leen sant di leen gërëm Papa Demba naaru Kër Massar bi Abdou Mbacke mm. Abo Sey Baara Sey Jili Sey am leen jàmm waa Touba maa ngi leen bëgg bu baax di leen gërëm waa Parcelles Assainies unité 13 unité 8 bàyyi ma kenn ñu ngi bëgg di char ñëpp. axlan wa saxlan booy Dakar ak booy Dakar sama doomu ndey booy Dakar. waaw booy Dakar mooy fii nii. booy Dakar mel na ma yoro jaaj non booy Dakar. <laughs> xam na xam na da ngay da ngay ji. waaw waaw loolu da nga doon da ngay da nga doon ñëpp am jàmm. <laughs> waaw ok jaajëf.